non non xel mënu ko nangu te loolu mun na andi ay coow mun na andi ay yëngu-yëngu. non loolu kay war waruñu ko nangu. man du ma ci d'accord wote rek population yëpp wote ko kuñ fal ñu xam ne kii lañ fal. waaw ah, foofu moo ñu bañ fa laal na ñu bàyyi rek déedéet loolu moom ànduma si de. parce que ak maire président bu fi nekk signé ne maay signé maire Dakar du signé keneen ku dul bu Akram kooku man d'accord ma si moom wote rek moom laa d'accord wote ñu xam ne kii la réew mi bëgg kii lañ fal bu ko defee nag buñ ko falee nag ña ko faloon mu tax mu def lu tax ña ko faloon fal ko mu ne fa te yàlla tax tëddee njaaxanaay waaw xam na kenn bu nekk. da nga jàkkaarloog borom bi tabaaraka taala te kenn du ko fekke te loo def ak loo wax danga nga ko nettali keroog loolu nag ku ko seet ku ne da nga bu fal danga nga geestu waxtaan ak ñoom am ci ñoom njëriñ ñoom am ci yow njëriñ waaye buñ la falee ba nga toog ngeen man fal nañ ma soxlaatuma keneen ah boobaa moom euh, yàlla rekk ba des. benn référendum. pour demander aux populations est-ce que vous êtes d'accord que le président di nommer chaque commune ou bien chaque ville le maire de la ville parce que lui on l'a pas nommé comme ça uh-huh. ils ont fait une élection pour ñu nommer ko alors ils sont en politique mais la population n'est pas en politique eux ils sont en politique mais la population n'est pas nekkul politique ñun lu ñu ñor suñu doom yi jànguñu ils ont leur licence ñu ngi toog la santé on a des problèmes ñu réglé ñu suñu problème yooyu moo ñu gën a urgent que de faire le jeu sur la politique là de nommer quelqu'un direct il peut nommer un général ça c'est prérogative am la mais pour les communes ça c'est la prérogative des locaux waaw foofu moo ñu bañ fa laal na ñu bàyyi rek soxlañu ko. loolu kay war waruñu ko nangu. ñoom toujours dañuy jéem a nax nit ñi rek comprendre nga te loolu defe naa ne arrangé wu démocratie bi ñuy woote waaw kon ni ma la ko waxee rek nañ bàyyi nit ñi librement ñu choisir ki ñu war a choisir mais ñëw bu ñu choisir seen bopp kon seen intérêt moom lañ fa gis da comprendre nga mais nañ bàyyi population libre ñu def ñu def seen soit quoi non loolu <laughs> ñu proposé wu ñàkk ko proposé seen intérêt rek état moom lépp loo xamante ne mu ngi koy jéem a lii rek intérêt rek. chaque wote naa wote même même kii nu mu tuddati euh, nu mu tudd euh, nu mu tuddati référendum. référendum référendum koy wote. loolu bu ñu ko defee ki ne président de la république day ñoddi mu ñëpp ci kanam waaw jeex na man du ma ci d'accord wote rek population yëpp wote ko kuñ fal ñoo xam ne kii lañ fal loolu mooy démocratie waaye bu dee président mooy nommé décret yi ñu féete ci ñoom di ko amal njariñ ñu lay war nommé. déedéet loolu moom ànduma si da ah li tax maanaam loolu moom bu ko defee li ko neex rek lay def te xanaa nit ki moom bu fekkee ne ne tey da nga ah, da nga nekk ci réew mi il faut nga am ñoo xamante ne da di xëccoo ba mbooloo mi ci ëpp fal la mais bu fekkee ne moom mooy buur mooy but bunni ah li ko neex rek lay def kon bu fekkee ne dafa proposer li ko neex rek waaw loolu la loolu moo tax ànduma ci. sama xalaat ci loolu. nomination moom moo euh, nomination moom d'accord ma ci dañu war a dañu war a bàyyi ñu wote comme li kii lu mu wax noonu la dañu war a bàyyi ne ni wote ko moo gën ñu ne président moo koy nommé bu ëllëg nomination yu bari gis nañu ko fii boo nommé nit yi léegi euh, dafa mel ni euh, léegi c'est une même mise sa sa devoir moo nekk ci moom loo ko wax rek moo loolu lay doxal mais bu fekkee population moo koy nommé bon te mu ngi toog pour population dafa war a liggéey pour population. ñu nommé ko ci vote moo gën moom président mu jël ko mu nommé ko c'est-à-dire que lu mu koy wax loolu lay doxalee te population yi léegi vraiment on en a marre de parce que lu bari yu mel noonu wax dëgg yàlla vraiment donc dafa mel ni gars yi léegi liggéeytuñu te loolu baaxul voilà comme lu ñu waxee wax na ko Sénégal benn bopp la saaga président saaga ay autorité la ñu bàyyi loolu loolu baaxul mais nag aussi nañu nañu war a affaire bi ñu teg ko ci yoon. moo gën nañu bàyyi population di wote di nommer seen maire moo gën. wax nañu nag l'ISCOM bi foofu c'est de richesse kon nañ c'est à présent ñi koy conseiller nañ koy jàppale même soit que je l'ai j'ai pas voté mais il est mon présent aujourd'hui fu may dem son passeport mon passeport c'est un passeport sénégalais et c'est lui mon chef suprême je lui dois un respect kon buy def na yëgoo ak sénégalais yi comme lu mu defoon campagne bi wax xalaatam keneen wax xalaatam se ça la démocratique ñu xool ndax li ñuy wax baax na wala baaxul ça que je lui donne comme conseil quoi. ay affaire naxaate la quoi parce que defe naa ne citoyen dañ leen war a librement def seen choix quoi. non xel mënu ko nangu te loolu mun na andi ay coow mun na indi ay yëngu-yëngu ndax am réew ca liñ fekkee. ci jamonoy Senghor ba ci jamonoy eh, kii mm, mm, Abdou Diouf ba ci jamonoy Ablaye wàdd dañ ko daan fal dañ ko daan def jàmm rek njëkk ci mujj ci waaye nag bu fekkee ne ñoom ci wàllu boppam ñu moom moo bëgg a doxale loolu ay mbiram loolu moom xel mënu ko te tey na xel lool ko bu boobaa li ko neex rek lay def mais Macky Sall daal xam naa ne eh, coow li bari na ci moom waaye nag li ci ëpp solo daal mooy na am yërmande dolli yërmande ndax ñi nit ñi ay niw doole ci nekk te ay niw doole moom boo séqee ñoom àdduna da ngay xool ñi ëpp ñi gën a niw doole nga di leen bàyyi xel mais wolof nee na mbaam gàtt na waaye ci jur gi la ndax fi ni nii ñëpp ci kaw lañ bëgg a dem waaye suuf mënut a ñàkk ay gaay te itam ñëpp loo xamante ne ni tey doomu aadama mi ngi koy dund bu sañan rek kenn du def loo xam te dañ ko ciy xeebe wala dañ ko ci yebe des fois léeg nit di dina def loo xam te ni neexu ko mais fii la yàlla dogal ne fii la war a jaar mu jaar ci voilà loolu rek la mais Macky Sall daal xam naa ne maa ngi koy conseil ne ko niw ji doole yi daal na leen di yërëm waaw na leen di yërëm. les conseillers nañ ko conseiller ne ko nga war a liggéey pour population mun a def benn souffle c'est dur ah c'est dur le Sénégal a après les élections ba léegi ngelaw dafa taxaw de y